kon ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek euh, ci mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi aju ci islaahu daaray ni ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi taxaw ak euh, section bu Louga Serigne Mbacke Mbodj kon ginnaaw ziar yi ngeen bàyyi ko Louga banqaas woow ci daare ni ñëw teewaat ziar bu am solo bi nga xam ne nii at mu jot yéen a ngi koy amal ci kanam Serigne Cheikh Mbacke Madina ngir waajale ko màggal gu tedd gi. Euh, tey jii teewaay bi kàddooy soñ yi ak yëg-yëg yi yéen waa Louga lan ngeen di wax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. di siyaare sëñ Mountakha di ko ñaanal ak wér ak euh, mu yàgg fi lool di ko ñaanal si Amadou Mokhtar. ak suñu Cheikh Bambali mi nga xam ne moo jiite njabootu suñu Mbàkke Madina ñëpp ñoo ngi ñoo ngi siyaare njabootu suñu Mbàkke Madina ñëpp di siyaare suñ mag nga xam ne ñoo jiite liggéey bi tàmbale ci Baye Ndiaga Seye uh, ñoo ngi siyaare ñëpp di jottali tim nuyu waa Louga yëpp ak siyaare waa Louga yëpp di tàmbale suñu Papa Dula mi nga xam ne suñu waajur la jiite liggéey bi àndoon suñu waajur nekk fi ba lay nekk fi ba léegi di di doxal lépp ñu ànd ko ànd ko waa Louga ndax euh, bis bi moom moom lañ am ndax euh, bis yëpp dañ ko bokk ak ñëpp ñu màggul dara xudóos ak màggalu tubaab loolu moo doon waaye bisu bisub sëñ Mbàkke Madina njabootu sëñ Mbàkke Madina ñoom ñoo ñu ko moom te yaakaaraat yi noonu la ko sëñ bi waxee woon bis bi taal bi ñoo koy def te te xam xam nañ xam na xam nañ waxtu bi te loolu ba léegi ñi ci lañ fekk suñu waajur ci la ci ci lañ ci lañ nekk nii di di ñaan yàlla rek li suñu borom digle ci yoonam ziar suñu borom defal defal ñu ko te defal ko mbokki taalibe yëpp ñi fi ñëw ñëpp ak ñi ñi nga xam ne dañ fa ñëw ngir soppe ak ñi fi ñëw ngir sëñ bi nekk seen seen kilifa ñëpp ñu ne leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen euh, yoolob ziar léegi suñ tubaab di ngi woon di ngi woon ki sasaara ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal defal ko ñëpp sëñ bi koy jiit tamit mu jiitu ko at yu bëree bëree bëree bëri ñu ànd koog moom suñu borom dool ñu ak kattan ba kenn ku nekk ñun li nga yéene ci ci sëñ bi yéene ko yéene ko liggéeyal suñu Mbàkke Madina jaar la ko njaboot suñu borom defal ñu ko. waaw xam naa soññi ko moom weesuwul ñu xam ni ñun suñ suñ lépp. Euh, ci ci ci liggéey bi lañ ko war a ci ci lañ ko war a def ndax suñ buntu ci sëñ Tuubaa mooy mooy que sëñ ke Madina kon war nañoo xam ni suñ lépp sëñ bee moom dañ ko war a joxe bam bam ba mu jeex tàkk bañ cee desal dara ci suñu alal suñu kàttan ak suñu wér luñ loo am rek ñu bañ cee ñu cee xeeb bañu yëpp bañ a bañ a topp jamono nga xam ne li ñuy gàllankoor yëpp ñu fexe ba ba taxale ko ak moom muy alal muy alal ak doom lépp ñu xam ne lépp sëñ bee ko moom te jaayante googu nga xam ni dafa bàyyi ko woon ci saxaaba yi ñu dëgëral ko te wéyal ko te xam ni saxaaba yi lañ joxe seen bakkan te ak seen alal te loolu moo gën a diis gannaaw ñun dañuy caf ci ñu am di ko joxe rek ñu xam ni loolu luñ ko def doyul kon loolu daal mooy kàddu yi soññ yi nga xam ne ñu ngi koy jox mbokki taal bi yëpp kenn ku ne xam ni li ngay am ci sëñ bi sa yitte ak sa bëgg ak sa passif moom moo la koy may